n'est pas la bienvenue pour contenu bi baaxul contenu bi baaxul Cheikh Oumar Anne yow yow yow ak Abdoulaye Daouda Diallo soo leen reyantee hmm. Pastef jël jël ñaari député Podor yi dëgg la soo leen reyantee yéen ñaar Abdoulaye yow ak Abdoulaye daadu jàll soo leen reyantee lii ngay wax ci Abdoulaye Daouda Diallo ngeen reyante Pastef mooy jël ñaari député yi te su boobaa c'est l'opposition qui perd hmm. fàtte leen seen égo yu yii seen égo yu ñàkk fayda yii ngeen di fàtte ils en sont non dañuy waxtaan. parce que ça fait mal. ça fait très mal à ce qui se passe. c'est vrai ñun dañuy liggéey bay bëgg a dee pour faire passer l'opposition pour jox ko majorité. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ciy bénéficier suba su majorité yi amee ñoom ñoo yàq li ñuy liggéey. c'est ça la vérité. parce que su opposition amee majorité kan moo ci gagné kan moo ciy bénéficier kuy dem mhm. assemblée nationale. suñuy former gouvernement kan moo ciy bokk. Mhm. du man du ñu fi toog. dëgg la. ñoom ñoo ciy bénéficier wu ñoom ñoo war a travailler pour la victoire de l'opposition ñoom ñaa war a travailler pour xool naka lañ mais guéguerre bi am seen diggante APR ak Amadou Ba la ñu war a teer et def yëfu jantalmaan dëgg la yëfu jantalmaan mooy li takku wàllu def def communiqué uh-huh. jox injonction mm. le takku wàllu et le sàmm kàddu de Bakel mm. pour soutenir la liste jàmm ak njëriñ de Bakel mm. ne leen génn leen ngeen def conférence de presse pour soutenir la liste de jàmm ak njëriñ lool mooy affaire u gentleman maintenant Abdoulaye Diouf Sarr yaa ci des génnal nga wax ak gor yi su nekkee demoo génnal nga wax ak gor yi def parce que nag li li Cheikh Omar Anne def du ko nekk mën a Ah non, mais, mais man j'apprécie ce que ce cher Omar a sa non, mais on rigole, mais j'apprécie. Voilà, hein, j'apprécie parce que nous lisons ce Ah oui, xool euh, ma ay quelques nit quelques naan ma non Diouf Sarr demul dafa jël dafa jël naa ñun suñu yoon nekk su ko jël recul recul égal ñun ñun recul dama ne dama ne position de neutralité sax. bëgguñu ko bëgguñu ko. recul ak seytaane la yóbbu seytaane gis nga fii dama ne yu Cheikh Omar Anne mii def sax moo ñu gën a mais moo ñu gën a mais nga taxaw nga taxaw carrément ñun fii dañoo bëgg ko assumer waaye jël 740 moo gën a wax xam naa xëy na Diouf Sarr la ku mun wax ñoo lay wax ñu bàyyi leen fi ñoom <laughs> léegi ñun. Ndeye Binta Gassama. Ndeye Binta Gassama Ndeye Binta Saari la léegi. sant <laughs> ma ñëw léegi ñëwal yow. Mhm. Euh, Ablaye Diouf Sarr. Euh, ah. kii. Euh, mm. Cheikh Oumar Anne mais kii. Mm. dama demal fay ci biti. Ah. Mm-hmm. Cheikh Oumar Anne. def na demande. waaw. te am na sañ-sañ. Mhm. leeral. Mhm. xam nga man. Mhm. nee naa leen. mais pourquoi ngeen di xuloog journaliste yi. dëgg dëgg mais xuloo. benn femme damaa mës a bind. mu woo ma téléphone. ne waaw yow li nga bind. ma ne ko madame ñaar rek a mun am. mais waaw ma ne ko. nga def sa droit de réponse suba ma dugal ko. wala nga yónnee ma sa say avocat. non c'est que dama la bëgg mën na ko si madame man dafa guddi. comprendre nga la. Mm. man mm. du ma is man ma su ma joxee information ba pare du ma expliquer. en tout cas Thierno bind na ma fi léegi benn moo laay lii maa ngi doo gis léegi.